keroog la jolante nu York cheikh Bamba mel na ni saafonte ak yenen ba keroog la njoolante nu cheikh Seex Bamba mel na ni saafonte naak yoneen ba maam Seex Anta Mbàkke ne na bég na fa mbég moo xam ni mane suko hibar bidu bi duuna may Cheikh Modou Lo Dagana begna na bay joy Cheikh Modou Njaay job di pespesi joy Sëriñ Bamba dal di jóg longook maam si anta ñu ànd ñoom ñaar mel ni weer ak jant bamba jana fa sidi anta lam taalifoon ci yooya xatu moom muy sant booleeg la lu weñ ba rasulullaahi booleeg la lu weñ ba la ko mu barkeeloo ko duna laay lal baa nga woon gaawaan ba sunu maam Anta ñu teye ko ca kaw lal ba mu mel ni jant ñu teg cay weer bamba daal di Sëriñ Moodu Lo Dagana moo ko woolu ne ko nga seetal ma capitaine bu tuddu mooy kilifa capitaine yaam na barke ngene ko mu tàggul ma tubaabi fil baari wal baare lépp lu xonq nopp Kerok sering bamba main foto baba tubaaba jaro jaro purus tu baba momi waru tu baba fa adi suba sa madam ba di joy di joy nan ko Cheikh Bamba ñi beto yow Cheikh Bamba si Dagana narsi sëñ Dagana naan sëñ mudulo Dagana nan sëriñ Dagana wutil ma pass ndax yow mi may bëgg a yóbbu raw nga góorug faas kolo sëriñ bamba naan nasaraan ya dooleel ma paasal waa jëma yóbbu daaro ma may paasal gaay yi badari ak jinne yi ñoo may paasal ci dara jaay njol ko dooma paasal kërala Sëriñ Bamba jagalatu baaba mu laaj ko fukk ñaar Sëriñ Bamba naan ko Sëriñ Bamba naan ko Sëriñ Bamba naan ko Bamba naan Bamba Sëriñ Bamba Sëriñ Bamba naan ko fiftin wila fi yorte du fi ñaar capitaine badal di wer tabbi ca wàllub gaal ga gaal gay bëgg a boxoot ca bal ba mu del si tuubal sëriñ bamba naan naan naan sëriñ bamba merci naan sëriñ bamba merci waxtu la soobe nga dellu Sénégal te kenn du la forcé sëñ bamba na ceex suttin waa jox ko moo dul dagana ne ca sutil waa def ko ci jibaam te faalewul capitaine ba sëriñ Modou Lo Dagana sëriñ Modou Lo Dagana sëriñ Modou Lo Dagana sëriñ di ko xibaar kàr way dab ko jox ko lim ba nan ko ñibi nga dal dina mes mu dem xibar ko serigne bamba jébbal ko khalis ba biral ko lim ba sëriñ bamba nan ko demal nga laaj ko sàmba géejo moy kilifa quartier ndax mu wax laa ki ko jox sëy Moodu Lo Dagana sëy Moodu Lo Dagana sëy Moodu di ko xibaar quartier ga woy daab ko jox ko limba naan ko ñibbi nga daldi na mes mu dem xibaar ko Sëriñ Bamba jébbal ko xaalis ba biral ko limba muno ko demal nga laaj ko sama gejola la mooy kilifa quartier ga ndax mu wax la jox mu dem di laaj Samba quartier ya wax ya ak Modou lok Samba ne naram fakana mu sëñ Bamba ku nek di giñ fa daam banaan Bamba mi jindela mami mala kamba billahi mbaam Bamba na len sëriñ bamba naa leen sëñ bamba naa leen seex bamba naa leen bamba naa leen bamba sëriñ bamba sëriñ bamba bamba naa leen gaa ak jinne yi danañ ma jox junni hadiyati safar la ko naa bil mustafa al maahe bila mana kiri, bay damlo tangor ba dellu jaaju di baga a jade gak ngir faji yaajo sri modulo Dagana dab ko famu mu daldi kaanu wax ko fa lo xam mu daldi daanu la sri Bamba Sri bamba ñàkk ab reer du teema xam la gaaye reere kër buur keru danga lu walaman mi ma fadiwan seri Sri bamba naan ko sëriñ bamba naan ko sëriñ bamba naan ko bamba naan ko bamba ko maa nga reere diwaan lu la gaaya réere ma daan lisaanu xaal daldi na ca Seex Bamba ca saaru Yunusa mu dellu Tuuba kolo Sëriñ Bamba naan Sëriñ Modu Lo Dagana yow yaa bari xaal bu dul ko nag yow mi duñ ma delloo Sénégal Sëriñ Modu Lo Dagana nan Sëriñ Bamba tuubi ruubi ñun daal Mbàkke yal nag nu delloo Mbàkke ak bu soobe subhaana rabbika bil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin barkeb Cheikh Abdou Akim Mbàkke